illa an yasha allah waaw mu mel ni kon nag mënoon na gën gudd ay lu ëpp baaxul ay <laughs> sànn bu dee ñii defee examen eh, am nañu moom waa examen jotee gën dootul am jàmm ak big big big big mu moom di yaakaar yaakaar la waaye lii am solo du ci big bi lii génn fii la moo tax ñaan ci big baax na waaye fexe ba nit ki bopp bi moo njëkk di farata moo tax ñaan yi dafa war a jiitu ci bopp bi ba noppi big bi soog a mujj waaw nga ñaanal ko sabbih isma rabbika al-a'la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 lu mu fàtte woon sax te yàlla yéene ko mën na ko ko fàttali ok yooyu pare na nga soog a jël bic ok jël bic nag nuun wal qalam wa ma yasturuna ma anta bi nicmati rabbika bi majnunin wa inna laka la ajran ah baamtu ko ñetti yoon wa inna laka la ajran wa inna laka la ajran wa inna laka la ajran ah غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم آه.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

motax lu ne balen ni nux nux ni war war lu ne balen ni nux nux ni war war kon acharru lazim dafa am ak acharru mutaaddi un mal nécessaire nit bu lépp marché ba mu jeex bay bo mutit nit ku se lépp marché rek bay bo ngeutit nit balaa sa mbir baax ngay am tolof tolof waaye fekk ni nag tolof tolof bi yàlla la ko teg bu la ko yàlla tegee charre bi laazim la bu ñëwul nga àl ko moo tax yàlla du teg nit lu dul lu koy jariñ même bu nu ree safaan parce que mal nécessaire la mais nit nag du def mal nécessaire char mutaaddi lay def waaw yàlla bosam c'est préventif mais nit bosam c'est agressif moo tax muy doy waar nit daf koy def rek pour tappaas la te tappaas dafay nuru ni da nga jël kàttanu yàlla parce que xaxara la jabara la te ñaar yi turu yàlla lañu kenn warul essayer not nit kenn warul essayer gaayu ci kaw nit ndax yàlla rek a ko moom qul huwa alqaad qaahiru fawqa ibaadihi yàlla rek ëpp nit ëpp gu mu sañee ci moom keneen ku mu mën di da nga tane rek mais ëppuloo ఓకే ఎట్టనే ఎక్కువ ఉప్పులో looloy tax yàlla tudd ñetti xeeti nit yërëm leen ñu ni ko lu tax mu ni sonn nañu ba te jariñul xam nga li gën metti ci àdduna mooy sonn ba dee te jariñul dalla sayuhum سعيهم في الحياة wa hum يحسبون annahum يحسنون sunan xam nga di sonne lu la dul jariñ te bis bu ne nga defe ni moo lay jariñ ba xëy yëg ni ndekete du jariñ te fa nga koy yëge fekk na sonn jeex parce que bala nga xamni la nga don daj amul solo bete nga duggé bammel te ko duggu bammel coono jeex moo nit war na lu muy rey bopam rek mu xam fu mu jëm ak mom وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا نينا من أمن يدغر باب ñoo xam ni lañuy def ñi xàmmee xam nañ ni baaxul te ku leen ni baaxul ñu xareeg yow nee na boobu genre dëgër bopp moo ko jàqal ci yenn ti nit koo xam ni li ngay def baaxul xamuloo ni nag baaxul waaye ñi xam ni baaxul buñ la nee baaxul nga xareeg ñoom boobu it jaaxal na yàlla bu ñetteel bi moy ñi la xé naxé nit ñi làmmiñ te yëg ni lammin te ni taxawu ñu ci dara wa tasifu alsinatuhum alkadiba an lahum alxusna mana di jaay nit ñi ku ma fi rombu do amati dara diko jaay nit ñi kuma fi rombu yow mini kuma fi rombu yaay kan am na loo xam ni ku mu nekk ci yow doo ko wax nit ñi la koy yëgloo nit ñi leneen la du tere nag mettre les points sur les i y a des moments yàlla dina ko ñaan yonent yi qul lahum qul lahum fi anfusihim qawlan baliga nit ñu xamul li ñu war a xam yàlla ni leen wax leen lu ñu dégg kooku du ñàkk l'opposition waral ci walu opposition dañu tudde ay liberté de presse ak mais ci ki kañ ci parce que liberté de presse du article bi nit ki la ki bind moy parce que abdouaziz Junior bu Tiwaawan dama mas a dégg mu mas wax benn baat BAT bu ñu war mais moom ci boppam mu tiire ci leçon dama dégg bés mu ne am na ñu nga xam ne bu ñu tàggoo tukki ñëpp war nañoo cotiser jox leen ñu toog parce que bu ñu tukkee yàqal ñépp mu ne am na ñoo xam ne bu ñu naree toog te duñu tukki ñëpp war nañoo cotiser jox leen ñu tukki parce que bu ñu tukkee lépp ñëpp defaru mu ni nag noonu laa amee ci wax yi mu ne am na ñoo xam ne bu ñu waree génn wax jar na ñëpp cotiser jox leen ñu noppi mu ne am ñoo xam ne bu ñu naree noppi toog jar na ñëpp cotiser jox leen ñu génn wax parce que bu ñu waxee ñëpp gindi ko muy leçon boo xam ne muy man di moom di keneen ñëpp war nañ ci mën a tiire tuuti moo tax dañuy am lu ñoo tudd appel d'offre bu dee ci wàllu xaqiqa appel d'offre amul de dañuy wax demande ak offre ci biir offre wi ñu wax ni appel d'offre mais bu dee ci xaqiqa appel d'offre amul offre moo am ak appel yàllaay yore offre bi nit ki yore appel bi mais bu dee ñun nag yow yaay yore appel bi yaay yore offre bi bokkul moo kenn warul ñaan te xamoo sa soxla yonent yi bari nañu ci ñaan ba noppi mujj réccu dem bàllu ji yàlla ndax yëg ni lañ doon ñaan ne ko jaru ko moo tax bala ngay ñaan xamal sa soxla xam nga rab rabbi shrah li sadri wax naa leen ko léegi ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي موسى موسى بن عمران مقوخ مي موسى بن عمران بون لا لاجي موي كان غاني موي الكليم كي يالا وخانتيل كون كي تي واخ نكو يالا سيدي كي يالا سيدي تي واخ نك مو نيان يالا فيخال دنم parce que ku bëgg a wax te sa dënn féexul nga wax musiba c'est tellement important xoolal fi mu commencé rabbi shrah li sadri féexalal ma suma dënd parce que ku sa dënn féexul boo waxee wax tag-tag bi ci def may wayassir li amri jafeñ-jafeñ mën naa am ak ki ma a waxal ba duma jëli cinq sur cinq mais yow yomb na la nga def ci mom qabiliya kon nak yassir li amri bi ci dess moy wax lul uqdatam min lisani nit dana bëgg wax deug sax waye waxim tax mu yaq kon wax lul uqdatam min lisani yafqahu qawli defaral ma ci walu tawfiq lutax sama lammi du gàtt sama lammi du fakastalu ba li may wax génn ci aafiya dugg ci aafiya gis nga boobu ñaan ku mel ni Moussa alkalim ñaan ko lu normal la parce que yàlla ko yónni mu war a jottali message te kuy jottali message yu yàlla war ngaa wax lu ñu dégg kon nga ñaan ñaan bi jaadu na waaye ni mu waree musa noonu la waree kii def examen ndax moom bu sañoon moom itam jury bi bi yore correction bi bu sañoon li mu wax ci taxi bi ñu dégg ko kon tawfiq boobu moom it soxla na ko waaye bu dul ñu yore vocation bu mel noonu nag nan waxlul uqdatam min lisaan yi amul solo ci ñoom li am solo ci ñoom mooy wajaal lii lisaana sutqin amna ko xamni xam ni soxlawuñu ci mom mu am éloquence orateur bi ki yore message diko passer soxla nañ ci mom éloquence mais ki nga xamni nak lolu du rolam liñu soxla ci mom moy sincérité moy bo waxé rek bu le nit ñi ak buñ la gëmul yépp nga xamni tu es sincère kon nag wajal li lisana sidqin fil l moo tax kon appel bi ak offre bi foog ñu seet ko parce que dañu jikki-jikki am ci ñoo xam ne dañoo am kerse seen diggante ak seen borom dañu ñaanal def ci am ñu ñaanal seen baay ba noppi ba yàlla nangu ñaan ga ba noppi seen baay weddi yàlla yonent bu ñaanal baayam parce que moom la yàlla jox leer gi mais joxu ko baay bi kon mu dëgg ci leer gi pour ñaanal baay bi ñaanal ko ba noppi ba yàlla nangu ñaan gi baay bi weddi yàlla mu wëlbati ko nag ñëw di excuse wu ci yàlla yàlla di ree ni ko kon bi ngay ñaan xamoo woon li nga bëgg xoolal lool واغفر لأبي إنه كان من الضالين فنيكو موتا بانغي نيان دنگا بغي سا يو دنگا بغي سا من دما خم سا باي خولال نيان بوبا يو دنگا بغي سا من دما خم kon nag bul ma ñaanati teg ko ci sa bëgg-bëgg dee ma ñaan teg ko ci xam ji ma xam te mooy yàlla yaa ma sedd bàyyi yaa ma gën a xam li ci man yaa ma gën a xam li ci moom bu ma sañoon nag mu gën waye comme ya mom ngëneel ya mom lenen buma sañon nak mo gën dénk na la ko wàcc nga ay yàlla defal ma sama bàyyi nangam yàlla defal lako bo nopi sa bàyyi wet wedd yàlla nga del wat ak sa kersa waxfir li abi innahu kana min ad-dallin yàlla ni la da nga gawtu bu ko tekati sa mbëggeel tek ko ci sama xam-xam appel bi ak offre bi fokk ñu seet nu muy deme beneen yoon nga dellu siwaat waaw ah yàlla sunu borom waaye sama soxna si yaa ma sama soxna si waaye ay te toppatool ma ko waay nangam nangam waay sama doom ji waay rey sa bopp dang dang ñaan ba bëgg a dee soxna si ñëwaat doom ji ñëw tas gi ay yonent lañ ñaan pour seen jabar ñaan pour seen doom ba noppi fekk yàlla xam na ay ñoom seen bëggeel la ñu am waaw ah. doom ja ñëw ak soxna sa tas kër ga tas mission ba saan kersa ga ñëw commencé ca noox kersa ga ñëw inna ibni min ahli di woo ko bopp ndeysaan ndax jaxal ah man lii li mën jaaxal na waa yàlla doom jeede yaa ci des yàlla ni ko bu dee doomit du njaboot waaw la ni jur ñépp koy def muus yi sax dañuy jur mais am doom rekk du teraanga lii teraanga mooy yàlla may la nga am njaboot njaboot mooy ku nangoo bootu waaye jur rek muus yi sax dañuy jur ba ci soxna yi booy ñaan soxna soxna bu rafet ak bu am lii ak bu am la baaxul bi baax mooy yàlla bu la yàlla booleeg moom yiw wamraatan muminatan taaiatan inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum gawal wëlbatiku del si ci yàlla di excusé war mu la sa mbëggeel nga ñaane mais ñaane woo sama xam-xam ba ci sa mbooloo moo xam sa daayira la moo xam sa tariqa la bu mu mën doon ñaan fiyaa sama mbooloo mi waaw benn bis nga jëkk yàlla ni nanga mbooloo mi ni ñett ñoo lànk ngay xool yi bët nan yàlla ay laa rabbi اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون yàlla xam nga ni ñii de dañoo juum de waaye baal leen rek yàlla yaa da doon ñaan ngir sa bëgg-bëgg waaye ñaanoo ci sama xam-xam boo ma bàyyiwoon ak sama xam dinaa la tànnal mais bàyyiwuloo ma tànn la da nga ku ramassé nag kuy taxan guddi kuy taxan guddi kuy taxan guddi mën ngaa for mat waaye it mën ngaa for li Mansour Sarr ragal jaaxle rek la ragal dama koy tooñ ca daara ja léeg-léeg moom bu ko déggee tur wi rek ne bujj na ma ni man ragaluma ko dama ko seexlu ma ne ko wallaay dafa seexlu di sànn dafa seexlu de dafa seexlu façon yooyu dafa seexlu lool di sànn bi lay di sànn waaye fekk nag kuy taxan guddi man nga am mat mais mën nga ci boole leneen te loola it lu ne xaj na co ndax ramassage wóorul sélection moo baax moo tax lu ne nga sélectionné ko say collaborateur sa entourage surtout entourage parce que li suñu cher doon wax naan le le problème d'un responsable sénégalais reste un problème d'entourage car il y a des informateurs mais aussi il y a des menteurs nee na responsable bu mu mën a doon mooy bu diine ba muy bu intellectuel ba muy bu politique ba li mu war a jëkk a def mooy sélectionné ay entourage am parce que koo xam ni ci ñoom ngay basé pour jëfandiku buñ la naxee rek gaañ la bu tax jox jël ñoo xam ni avec toute honnêteté la ñuy collaborer ak yow ngeen gisee kii nii li ñu leen wax ci njalbeen gi loolu la cër bi ñu ko sédd ce n'est pas en tant que préfet du département dañ fi amoon contentieux ak régime bi fi nekkoon mooy bu Abdou Diouf fi ma jaar ak Abdou Diouf xam wax naa leen ko démb léegi nag bi ñu demee ba jóge ci sunu événement yi nag war a commencé waat sunu activité fekk moom mu nekk préfet bu Dakar te yi ñu war a def comme cérémonie moo ko war a signé te booba jot nañ yeneen instruction yu bokkul ak ñun li ñu bëgg mu ni parce que dafa am loo xam ne du problème mu këyit problème mu nit la mu ni ki ngeen daan yónni ñu koy wax Badra Fall muy seen njaboot bu ñëwee yar bi muy ñëwee ak nite gi muy ñëwee ci seen tur bu ma répondre leneen lu dul yar ak nite rek mu jéppi ma mu motax fofu dotuma xol ordre yi ma jot nu may gérer ba yëpp baax moy sama farata gis nga lolu entourage yëpp ci bobu xalaat lañ ko wat di wër waaw rek tan ñi nga amal affaire muy serigne ba muy keneen ci yem nak parce que serigne ci it léeg-léeg aduna tukki dara du ko tukkal lu ñi nga xamni ni kenn xamul lan lañu ma xojju yi ma xojju yi ma xojj yoo xam ni rek xojj rek xojj waaw waxin la de du n'importe qui am na ñoo xam ne dugguñu ci boobu cadre waaw xojjuñu dañu xejj bokkul xejj nañu waaye itam rek ñoom moom ñii fii ku ci ne boo ko gisee boo ko gisul xamal ni yéen a bokk yépp ndax di nga gis ni doo ko xam sax parce que principe yi les hommes honnêtes ne se cherchent pas mais elles se retrouvent alors nous sommes waaw moo tax léeg nga gis nit mu la yàgg naa di la rek a gis waaye fekk nga ko am régime pour boo nga tey parce que ay njabootu votre rek te ñun dañ leen di yërëm buñ leen xamuñu intelligence bi mu wax bu dul tukki bis ñu ngi ci biir événement président nous euh, les gardes ñu ñëw tuddee garde présidentiel tey sol nous rouge ñëw ñu dañuy jël ma jox leen ba noppi créer section mu au palais mën leen da ngeen di rey seen bopp abadan mukk bu ñu xam ni sax mustarshid ngeen seen werd fu ngeen ko war a defee muy farata bu jotee def leen ko fa bu seen service jotee def leen ko na mu gën a rafet mais il n'est pas question ngeen di créer seen section dañ leen di gaañ kooku nité la bu ma leneen intéressé woon mën naa ko exploiter mais ça ne m'intéresse pas

affaire u xel la moo tax yey moo gën rey moo tax nag boo xamul looy ñaan ñaar yi yëpp ñoo yem boo xamul loo war a ñaan xamoo loo war a wax noppil moo tax baatu inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma insiyan mooy waxinu Maodo ba Cheikh El moo ni jamono bii gàllaaj gi ci ëpp doole ñu ni ko amu ah, ne mooy dugg sa biir néeg tëj te jàpp sa njàmbur ndax dëgg dootul jëriñ mbaax dootul yóbbaale jamono bu dëgg dootul jëriñ mbaax dootul yóbbaale kon ko yóbbu toog sa néeg jàpp sa njàmbur te xam looy def waxin la rek moo tax mu ngay naaj te ndaw kunda yi moom bu wëraañ jotee rek déggatuñu dara ñu baal ma nag am naa ma yóbbaale ci njóobeen yi <laughs> نسان نسان نسان ويجيس نادونا ولكل نبي جعلنا عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ويجيس عمر بن الخطاب dañ ko ni l'islam élément yi ma am ñan ñoo ci ëpp njariñ omar ibn al ca bobo jogono element yi mu am ñan ñoo ci ëpp njariñ mu ni ñi jaar ci jahiliya mu ni kep ku nekk element wu l'islam ta jaaro ci jahiliya bis dana ñëw nga yaqal l'islam du ko dul defaral wala no bobu wax waaw ñu bala nga nekk waliyu jaar ci yenn yi waxin la de waxin la waaw ah. maanaam ñi nekkoon ceddo soo ko ci yef yi ñoo ëpp chance da bu ñuy ñëwee dina am lu ceddo ja def ci ñom lo xamni bu dé tarbiya bi du ko mën moo gis nga il faut faire très attention yalla kenn mënu ko xam li sëñ Cheikh di wax ni la keroog jullit yi bi ñuy jaayanteeg yonent bi bayaat al aqaba ci taxta shajara nee na keroog ba ñuy jaayanteeg yonent bi seen dévouement engagement ci l'islam ak yépp nee na booba yàlla nga toog fee moo iblis di leen xool di ree ndax pacte bi ñu siñente ñoom ñaar yàlla ak iblis mi opposant di leen xool di ree parce que xam na ni foog Iblis dana def service am te c'est un opposant foog mu bàyyi ko mu def ko c'est tellement important moo gis nga borom cër nit ñi mënuñu ko xam keroog bi ñu suñu Cheikh di jox ordre ne votel leen Abdou Diouf booba wax na ma ne Abdou Diouf day wàcc

waxin la moo à am na ñoo xam ni seen borom rek la ñuy natt moo tax keroog ca dix heures jëpp ba mu demee ba gis ni résultat yaa ngi ñëw te baaxul te mu dajale son cabinet woo le ministre de l'intérieur pour que ñu def hold up électoral moom mu ne ko ëpp naa def wax nga ba noppi te gor du wax di dindi wax ja yaa ne buñ la gañee di nga ko accepté nga moo nit ku lay la wara a ont parce que bu ko ay en tant que ministre de l'intérieur aduna tukki waaye mun ko bul fatani ya buñ la ko te gor day sam wax li moko tax mu désister gis entourage lañ koy def lu mu metti metti am na bu réalité oto ñaar yooyu yooyu du fi jóg ku nekk ak li nga suivre xam nga moom léegi wax na leen ko ci wàllu Serigne Cheikh ñu ko xam ne rek def naa la su yàlla nee na yonent bi nee na sa maam Maodo nee na Baye Babacar nee na moom nga doon xaar ci moom bu lay wax ay Engels di la wax ay ñoom Karl Marx mais nga xool ci jaal na aduwan wa li kulli nabiyin jaal na aduwan shayatin al insi wal jinne genre démarche dialectique yooyu di am Engels jaar fële ak idéalisme euh, dialectique Karl Marx jaar et ak matérialisme dialectique ku ci avec vision mais l'idéalisme, bi bu matérialisme bi pas luñ koy doyee moo opposition bi c'est nécessaire moo tax nag ker ker ku ko bëgg a jubbanti da ngay jubbanti boroom ku bëgg a jubbanti takk ndeer da ngay jubbanti boroom ndax hal yastaqimu dillu wal udu awaj ah mu ngeen naaj am naa rek ñu faf ko

nit ku ñu doylo doylo doylo ku doylo mom lañuy jox doole ku doylo lañuy jox doole wa inni alayhi لقوي امين باسكو parce que du def doole fuñ ko warul def du def doole it te jotul te du ëppal doole ndax ñett bu ca am doole yàqu boo ko defee te jotul mu yàqu boo ko defee fuñ ko warul a defee mu yàqu boo ko defee ci yooyu yëpp ba noppi mu ëpp mu yàqu moo tax foog nga nekk ku doylu doylu bi mooy taawu doole ji bu ñaareel bi mooy xam-xam yàlla xam-xamam soxlawul am leneen pour xam-xam bi jariñ ko mais doomu aadama kenn waru koo jox jox xam-xam te defuñu ko mu sérieux ba noppi gis nga ku sérieuxwul boo amee xam-xam rek sànq ñëpp c'est très grave moto nit ba luñu koy wutal xam-xam nañ ko yar ba mu sérieux ba nopi moto may wax ni rew bu fekkee ni population ba sen xel ak sen jikko daf di perantal yar len moy njëkk di farata xeexloo leen réew moo xam ni seen xel ak seen jikko yëpp def di perantal xam nga perantal miisagul ween perantal miisagul ween loo ko teg teg leneen it bu séenee ween wa rek ca parce que miisagu ko moo tax nag réew bu fekkee ne peuple ba seen xel def di parental seen jikko di parental kenn du leen xeexloo dañ leen di jànguloo dañ leen di yoruloo loolu ñun niveau mais al wal ou xam nga ñi ci sonn ñi ni puissance mbooloo mi la mais mustarshidin ba ñuy commencé puissance mbooloo lalu man ma nekk ci daara ja mu wóor ma ni kër gi ma bokk ñi ma xam ñëpp def nañ seen warugar cheikh alxaaj malik ña mu war a jàngal jàngal na leen ña war a yar yar na leen ñamu mu war a yee yee na leen ña mu war a yiwal yiwal na leen bi mu fi jógee sëriñ Babacar si ñëw na def de la même chose الشيخ احمد تيجاني ميم مين ميم مين منصور سي بايلا مصطفى سي بايلا عبد العزيز بايلا نيوم نيب بايلا نيوم مان شيخ تيجان سي لا مين commencé ci man mësul nangu ma doxé ni mawdoy sama mam wala babacar sey sama bay ndax kërëm nga fa ñëll la nekk fa sunu ndey sunu bàjjen yi di toggal ñëpp di sedd ñëpp te ñun yalwaan la ñuy dunde mu bàyyi ñu ñu yem ak wax naa leen ko démb ca dina Kebe Kaffrine gii ba mu koy miin du tey maag berlier yi ñoo daan ànd ñu ñu yen ma ci kaw saaku yi te dama daan sàcc ah. duñ ma bàyyi damay sàcc Eh, buñ ma yëgee àdduna tukki sàcc yéeg ci kaw sàkku yi ñoom njaga bala ak ñoom mu xewee ndax kafrin lañ daan dugge ji li njaboot jiy lekk ca tool ya ma sàcc yéeg ci sàkku yi ñuy indaale ma Kaffrine ci laa commencé xam luy Kaffrine léeg ma sàcc yéeg ca sàkku ya ñu yóbbaale ma li ñaan te gerte gàtt dëwlin ga ma ànd ñépp fii ci buleel yéen a ngi nii ñu ñuy indil sunu laaxu sumbul gunóor yiy dox ak soowu benqal ba te booba Cheikh Tidiane see ngi maye des millions et des millions bala ni nux nux ni war war ba noppi fii mag Sëriñ Mansour ñoo ki yéen ca tool ya jaan yi génn fii yalt yi génn fii wareyaan yi génn fee leneen ak leneen ak leneen boole jinne yi ñëw yéen ko xam jinne yi ñëw trois heures du matin ku mu fekk ci ëttu kër gi jinne ji ni la hey jógal tëddi ba ma la fi fekkaatee du baax fii fii fii yoon amul dara amul ba benn bis soxna amin takkan dégg ni li ñuy dunde fii metti na ci affaire maam rek ak sët ba xol bi xaw a jeex mu dem marché kaw nag yëpp mu jë mu jënd ko lu ne mu dugg ko jënd ko togg ko defar ay fiiram fii defar fii lu ne dem gobbi ko Kaolack ak ay otom ñëw wàccee wàcce waaw doom fii ngeen ne nangam nangam waaw ba noppi ñu ne ko waaw boo ko mënoon delloo nag mooy gën ah, waaw ah lu tax ko dañ fay nekk ak sunuy nawle te lii matul leen te mënuñu koo lekk bàyyi leen boo mënoo ko def mu matale rek baye bokkoon nga delloo ko ñu lekk liñ daan lekk ak ñoom bu jeex tak bu sunu quartier moomee comme ni ngeen ko xamoon li yépp dañ ko teele miin dañu organiser bu yàgg boobu mustarshidin ñëwul ay quartier la comme militaire yi dañuy am moomante parc yi ku war a moomante de garde ñu dem ba trois heures du matin ñoo mbaam àll yi bu trois heures du matin ñëwee ngay soog a ñëw da ngay tëdd tuuti rek fajar jot ñu nodd nga jóg dem yeesali sa njàpp waaw yépp ah du ñu am ndox ñooy jël sunu bërigo man sëriñ Mansour ci la fii lañu ñu miine sareetu mbaam ab sunu sareetu mbaam jël sunu bërigo dem ca todd te teen ba ah waaw ci la miine bu baax sax dafa neex ah waaw boobu tactique salum salum yi ñoo dàq nu ñuy defee dorote ci teen façon bu rafet façon boobu ñu koy àndee di def nii bu kii xëccee la non c'est extraordinaire lay day sànni day sànni duy sunu bëri ko ànd ñu nekk yëpp xale yi ree ji day sànni daa di ñëw wàcc sunu bëri ko pendant presque une semaine ca la ñuy sang ca la ñuy jàpp ca la ñuy def yëpp bu jeexatee ñu demati lay ndeysaan léeg-léeg ndox mu jeex ñu ñëw am na ndox boo xam ni ci waañ wi la ne amoon nañ fa sunu ben yaay bo xamni mom rek eh, tabarkal bu ñu seené ñuy ñëw bëgg wut ci ndox mi nak mu jël xorom rek sanni ci ndox mi sànni <laughs> mu bañ ñu tank ndox mi sànni ay doñi dara ñu delu wat ci ten ba rek hmm. sànni pour wax la gis nga yoyu ñu joggé ci loolu and ko ñu ko andal ak gor yu bax yoyu loolu kuñ ko defal war naa am lu sa xel xalaat a doo dem rek toog ma ne nag kon lii am na baas bi am nañu ko nañu fexe ba ñu nit ñu exporté ko te mooy nañu fexe ba ku ci war a jot jot ko moo tax Moustarchidine façon li dundam bokkul ak dundu daayira yi ci kër gi bokkul parce que daayira yi ci kër gi daayira tiijaan la mbay yaa nul yi jéeg nañ leen siyaari mbay jéeg ku ne daanu fii génn sës dërëm loolu la mais Moustarchidine c'est universel amul tiijaan amul murit amul xaadir amul jullit amul ñëpp ko moom ni mu amee ay membre jullit la amee ay membre chrétien ni mu amee ay membre tiijaan noonu la amee ay membre murit xam naa leen am na ay membre yi tubaab am na ay membre yi naar yow xam nga ci dara

kooku armam moo ëpp doole ci man armu Saddam Hussein pour wax leen nit ñi fi digg daw Saddam Hussein Gaddafi kuy Gaddafi kan Gaddafi kan mooy Saddam Hussein des simples chefs d'État bu ñu génnee seen réew jeex na la dogal seen réew la mooy bu ñu génnee seen réew feneen ñeneen a ko moom Gaddafi toog bu fi toog rek ni day ñëw Sénégal par force visée jàpp datu boppam Abdoulaye Wade il n'est pas question Fi ñun ñoko yor bo bëggee ñëw neel da nga bëgg a ñun ñu préparer ko jox la suñu dat c'est ça to loolu ñun ñi mom lañuy doxal ak mom moo mu respecté ñu ñi ci des dañ koy gis di daw di yuuxu ñi di joy gis na ci sama bay bo xamni joy na ci seen kanam bés ah, bëgg ko ko fonk ñii di jooy ma ne ko lii jaaduwul rafetul gis Yaasar Arafat di jooy ma ne ko mais c'est pas beau te Algérie maa ngi toog ngi day am dignité na ko xam ni kenn ëpp ko ku mu nag amel sympathie na am ak yow sympathie mais na xam ni moom it li mu doon la doon donc yooyu nit ñi dañ koy xam ay wax fii dramatiser fii ñu ni nangam fii yor arme mais luñ koy doy arme pour lan doy ko lan yow ki yàlla wax nga dundal nit ñi am na leneen loo xalaat moo tax dafa am yoo xam ne na ko nit ñi dindi ay mustarchidin liñ ko jàppe ak li mu doon bokkul ay nit rekk lañu waaye nag nit ñu yar lañu nit yu xam lu baax lañu nit yu bëgg lu baax lañu nit ñu bëgg ànd ak ñu baax lañu waaye nag bëgguñu ko leen tooñ te benn nit nag ci àdduna bu bëgg ko ko tooñ amul lii rekk la moo tax bu tooñ amul rek yépp mën na baax y pas de problème waaw moo tax nag toujours bu ngeen gisee ma di leen fàttali li xew léegi ci wàllu préfet bi c'est tellement important parce que nit man na defaral kilifa lo xamni kilifa gi bu ko beggon defal bopam sax du ko man motax njabot bu xam lu mu don am maturité am sako tay man na def lu ne wa koko nak ni muy baxé ci côté diine yi non lay baxé ci côté administration bi motax koko ci am rek ñun en dor collaboration bi ño amal le suñu estime bop wa da na kon nak ñu ngay sant ñi fi téw na bu ñu topé yëf yi mom yaakaar naa jeexul sax jeexul xaajul jeex waaye rek luñ ci am baax na ndax yeneen ni daaraa ngi fi te jotee mën nañ ko mottali incha allah dañuy sant rek e, bëgg rekk ñun ñëpp ñu bay xel suñu bopp te jàppalante yu bari yomb na yu mën a nekk la mës naa leen wax ci benn waxtaan ni leen yi sunu borom sedde woon Suleymaan yépp ba mu doxal ca nguuram mu ngi fi waaw mhm. waa incha allah ndeysaan waa incha allah mhm, mhm. yi yàlla mayoon Suleymaan parce yàlla yonent yi mu yor ñi ci yor nguur nguur ga marché ñaar lañu Suleymaan ak Yuusufa seen nguur du woon politique kese kese mayu yàlla la woon amoon nañu seen expérience nag amoon nañu seen compétence surtout waaye am na loo xam ne leeru yàlla la yooyu luñ ci mën a doon sunu borom daf ko mujj def sirru sirru baa ngi fi waaw tax na lu ci nekk rek mënees na ci jëfanteeg nit ñi ba lu bari décanté wu waaw bu ko defee rek ñu seet ci wàllu collaboration te bañ rek top nit ñi dafa bari ku ni wattul diw fekk diw amantewul ak yow dara mom le diw déranger te mu bëgg ko ko fajal ni la wattul diw Wa. te li dafa bari ci rew mi wa wattul diw wattul diw wattul diw fekk na yow diw dara taxul sen diggante wa waye mom nag le diw déranger il faut que yow mu yëkkati la pour que yow nga fajal ko li mu bëggoon nga ñu fajal ko bu ko defee rek Sénégal mën nañ ko defar parce que lu politique mënul tëral mënu ko gouvernement mënu ko yàlla mën na ko te yàlla la mu mënoon ba léegi tey la ko gën a mën la mu disposé woon it tey la ko gën disposé te yépp a ngi fi waaw moo tax yi koy bloqué rek lañuy seet lan la ñu jéem a fexe ba débloqué yooyu lii marché marché te man bu len ko waxe war ngeen ko gëm man dépassé na nek, parce que gis nga Cheikh Tidiane si Cheikh Tidiane si jikkoog mët rek mom tax ma faa ko ndax leneen lu mu man doon nag ñeewu ma ca barke yonent bi jikko ak mët maa ngi topp tànk bi nag yeggaguma fa ndax Serigne Cheikh laa dégg mu ni lu njaboot baax baax baax war a nangu kilifaam gën ko waaw lu njaboot baax baax baax war nangu kilifaam gën ko loolooy tax nag ma ni leen ñu ngi ci tànk yi jotaguñ ko waaye ñaan nañu yàlla jot ko waaye yéen it ngeen jot ko li ma fi bàyyi moo leen fi bàyyi lii rek la du question parce que sa bàyyi la dafa am loo koy xëccool nangam mais Cheikh Tidiane si bu amoon lu muy xëccool kon sëñ Babacar si dina fi jóge rek mu toxu Dakar déedéet tox na Dakar avant sëñ Babacar di fi jóge mujj dund sëñ Babacar dina toog six mois sëñ Babacar du ko gis motax ngay xamni kon koku amna leneen lu ko intéressé lu bokkul ak yi nit ñi fokk ba tax na kon nak ñu japp yef yi rek walu vocation walu principe seet naka la ñuy bolé yitté yi ak taxaway yi ba lu war a rafet rek mu rafet bu dé ci walu réew mu rafet

mais loolu nañ ko bàyyi waxtu waw mu jotee bu ko jotee yàlla dana ko def incha allah bu ko defee rek nag kon nañuy rafetal njort yi waaw kay ah, hmm. bëgg bi am bind ah, nag naaj na ñu ngi gërëm waa Kaffrine yëpp ak tundu Kaffrine yëpp li ko commencé fii ba keroog ngay dem Medina si jaaraay Medina Kebe tabarkalla jaar jaxaw Saloum tabarkalla jaar ñiibi waaw kay ndeysaan walay ndeysaan mhm. waaw waaw walay ndeysaan waaw incha allah bu soobee yàlla incha allah danañ ko ko jox incha allah jaar ba ñiibi ay panel yëpp nag bay ngay dem Malem Hodar ak yëpp tabarkalla a ngi fi yal na yàlla defal ñëpp jàmm te ñëpp dellu ci jàmm te yàlla yokk sutura yi yàlla defal leen barke def barke ci jawwu ji def barke ci jéeri ji def barke ci teen yi def barke ci siyaan yi def barke ci géej yi def barke ci dex yi yàlla yàlla barkeel yëpp kenn ku ne yàlla defal la ci xéewal loo dootul sonn lu ni tollo yàlla yàlla baaxal njaboot yi te yàlla tette leen yal na yàlla barkeel liggéey yi te yàlla def ca njariñ yal na yàlla barkeel dugg yee génnee ci wàllu commerce yal yàlla baaxal tukki yi yal yàlla def réussir ci examen yi kenn ku ne yaa xam lii sa ñag-ñagu xol yal yàlla jiitu ca defal la ca loo foogul woon yal yàlla barkeel sëy yi te ñi amagul leen yàlla jox lu gën muy ci góor ñi di ci jigéen wa tabarakallahu ñi am projet yi moo xam projet économique la wala projet culturel la wala projet sportif la yal na ko yàlla mottali na mu gën a rafet te mu ànd ak sago te ñu muurloo ko tabarakallahu ah Haj Malick muy Maodo loo moo doon ñaan ñu gërëm responsable yi nga xam ne ñoo ko féetil fii ci Kaffrine mu di sunu mbokk moo du génn ak Samba Thiam ñoo ko ci liggéey bi rawati nak nak fi ci conférence bi seen lépp ñoo ko yor kon nak ñu koy sant di sant ñi leen jappalé ci goor ñi ak ñi leen jappalé ci soxna yu jigéen ñi wa ñepp di sonu ci gan ñi yalla fay leen bu ko défé nak dañu wax ni le député tabarkallah Babacar ñu may ko pour jotali ben message inshallah ñu jox ko mu jotali message bi bo paré rek ñu daal di ñaanalante mané yéwonté yeewante naaj ñi fi tok ñep seen bax rek ka tok ñu tok fi waye ku ne am nga ay yitte yu dul jeex kon nak yitte yee yàlla na ci yàlla def jàmm te yàlla def ci rek kon ñu jox ko kàddu gi ñu paré rek ñu tëj inshallah allah jërë ngeen jëf. nuyu. Euh, di nuyu mbooloo mi fi teew du hmm. nuyu daara al mu wala mustashidati di am mbégte di ñëw fii euh, muy sunu dëkk hmm. waaye ñu ñëw fii pour fekkee sa waxtaan hmm. euh, ndax bi nga xam ne comité d'organisation jox nu invitation jàppoon nañ ne bis bi waroon nu bañ a ñëw sunu tardé nag dafa fekk ne Eh, Dakar la nu jógee tay ci suba. wallaay ndeysaan. ngir bëggone féké waxtan wi à partir de 10h dix hmm mais yalla tuddu hmm tudd. Mm-hmm. Eh, ma ñëw fi 11h ndeysaan dëgg la. dañ ko ciy sant. parce que ah. mënu na def leneen. ndeysaan ndeysaan. li ko waral nak dama guddé demb ndax mm. gis nga suñu affaire yoy ñu nekk assemblée nationale. hmm fala nek ba 1h et demi wallaay ma doro yegg sama kër. wallaay ndeysaan ci la ñëw fi tay hmm fii tey. Mm-hmm. Eh, tey nag dama am man mbégte retrouver la uh-huh. ndax sama jataay ak yow mm-hmm. euh, bu weesoo jataay yu mel nii mm-hmm. jamono léegi mm-hmm. ñoo ko bokkoon uh-huh. waaw waaw dëgg la euh, te ñu gisoon sa taxawaay mu mel ni tey euh, tombe moo indi ay gaaf ma ñëw fii nekk ndaw président Abdoulaye Wade mi nga xam ne moo jiite sunu parti ñun PDS nek aussi ndaw ministre d'État Idrissa Seck mi nga xamné mo top ci mom moom ci wàllu woowu. Mhm. mais nek aussi ndaw assemblée nationale bi nga xamné ne. Mhm. askan wi toog tey. Mhm. ñom ñoo sabablu woon té dox ko liggéey ko ba ñu ñëw teew fa ñun. ñu ngi leen ci sante amu ñoon occasion def ko. dëgg la. kon. Euh, euh message bi ñu lay indil moy message coloré coloré. ndax man xam naa lu bëri lu dox sa diggante ak président. Mhm. boobu nekkul président boobu Maître Wade rek la nuy wax. wallaay wallaay dëgg la ñuy dajee point E. wallaay. di fa dajeeg Mansour. Uh-huh. nga fay yónni say rakk yi. Uh-huh. ñuy liggéey ba tey yàlla def lii. Uh-huh. Mm-hmm. kon dafa mel ni. Mm-hmm. alternance boobu nga tuddoon léegi. ah bu ngeen koy door. tey la mm-hmm. ko yàlla mottali mais yéen ko sabab loon ca commencement ba. dëgg la. seen wàll nag. ñun xam nu ko. Hmm. seen cër xam nañu ko. Hmm. moo tax tey ñu am kontante am mbégte ñëw fii. pour fëddale hmm. loolu. dëgg la kàddu yooyu président loolu la ñu sant. ci diggante euh, sunu parti. ak euh, kuréel gi nga xam ne muy Moustarchidine wala Moustarchidaty. Idrissa Seck aussi. bi ci guddi bi ma jóge assemblée minuit et demi. pour wan la euh, pastef bu mu am ci. relation yi ngeen am. Mm-hmm. laa ko woo ne ko dama bëgg a dem.